ci dara waaye seytaane koy def waaw ndax day dugal ci xelum nit ñi ñu defee ne diine xalaat bu rafet rek sawa dégg ngeen si temps yi jigéen guy waaraate waaw ne yàlla bëgg na sabar bëgg na tama ndax moo bind xar moo bind àll bi waaye xam ngeen loolu loolu yenul maanaam yàlla bëgg na tama mu nga wa an taqulu alallahi ma la taalamun seytaane mooy fexe ba ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamul loolu la alquran wax yàlla ñu ci àlla musal way saa xiila lahum buñ leen waxee ne attabiu topp leen ma anzala allahu li yàlla wàcce muy alquran qaalu ñu ne déedéet bal li fi nekk ay ñun nattabiu dañuy topp ma alfayna alayhi lii nga xam ne ci la ñu fekk abaana suñuy baay topp leen alquran ñu ne déedéet nañ topp li fekkoon suñuy baay ah yàlla mu ne ngeen ne ñu ne waaw mu ne awalaw kaana doonte dafa nekk abaahum seeni baay laa yaaqiluuna duñu am xel sax ngeen toppale laa yaaqiluuna shay'an duñu xelu dara wala yahtaduun te duñ jub ndax da ngeen leen ca topp yàlla fii day jàngale benn mbir bul wax ne li ma fekk sama baay lay topp da ngay seet njub gi sa bàyyi nekk nga topp ci moom laa ko andi jàngale fi lu jafe la nag li sa bàyyi nekk nga ne ci ñaari mbir la nag léeg-léeg nit dañ na ci li bàyyam nekk ba pare yokku ca kooku bokkut ak ci wuuteeg bàyyam wuuteeg sa bàyyi moo garaaw mooy ñëw sa bàyyi nekk ci diine nga nekk ci mpox loolooy wuuteeg sa bàyyi waaye bu sa baay doon julli di wax bismillahi rahmaani rahim yow ngay tàmbalee alhamdulilah loolu du jooyoog sa baay ndax lépp diine bu sa baay doon julli di def nii ay loxo yow ngay def nii say loxo loolu du wuuteeg sa baay bu sa baay doon aj yow ngay wàcce loolu du wuuteeg sa baay déedéet ndax bu sa baay yenn woon tey ay banaana di dem nga for benn dab ko ne ko papa bii banaan de ci la wadde day wax waaw waaw rek def ci lépp banaan la lam yenoog li nga yor lépp banaan la wuuteeg sa baay mooy sa baay dina ci jàkka ji jàkka ji xam ko muy ko yiw jàkka ji musulaa gis lu lay wuuteeg sa baay wuuteeg sa baay mooy sa baay nekk ko baax nga xëy yow nekk tuxkat sa baay mu sa tux ngay nekk tuxkat loolooy wuuteeg sa baay moo tax waxoon naa ne fii këram ni maam Cheikh El Hadj Malick taxaw ne nii di julli suñu aadi taxaw nii maam Cheikh El Hadj Malick wàcce suñu aadi xabdu te suñu aadi ko ko jàngal maam El Hadj Malick ko ko jàngal ko amuñu benn part loolu du wuute moo tax bu ñu ne diw daa wuuteeg mag ñi da ngay xool bu baax lan lay def ki wuuteeg mag ñi mooy kii sol torpedo wala mu sol cap mbaa muy taal mal bu ruuj xëcc wuute nag mag ñi maam Cheikh El Hadj Malick ñoom maam Borom Tuubaa kooku moom wuute nag ñoom waaye kuy julli ñu naan nii la jullee nii la jullee wuute wuute ak ñoom membre de Fada rek benn déclaration nee na lu imam Malik def rek jox naa leen ci ndigal tukur lu lu lu imam Malik def mashabam jox naa leen ci ndigal ko kay yaatu na kon wuuteeg sa baay noonu lay tekki kon fii roy sa baay dëgg la waaye wuuteeg moom ci masalam fiq loolu tekkiwul wuuteeg sa baay saaba yu wute nañ ci fi yonent musulin ci wax dara tabarkàlla waaye ci biir waxinu olof soo amee doom tey loo ko mën di jàngal bu ñu bu la koy wan ngay kontaan ba mu def diine bu amee doom mu dem jàngi jàngi ñëw ngay jigéen mu ñëw jàngal am ndoket yaay da ku ñëw nga ne ko ah moom kay léegi mokkal na ndoket bi moo ko ñëw tabarkàlla da ngay jug lool waaye bu ñëwee ne la yaay bopp neen day nga ne ko yaay maanaam njàng mi ci àdduna moom nangu loolu waaye njàngum diine moom moo fi waar dafay wax moo fi waar mooy kañ nga judd fekk nag lim lay wax muy dëgg nim la nangulee ñawal ci ndoket bi ngay bég noonu la la war a mën a gàggantee ci diine waaye bu lay waxee rek nga ne ko eh déedéet da ngaa war a nangu tabarkal awalaw kaana abaahum la yaqilun shay'an wala yahtadun wax la ju yaatoo yaatu wa masalu lazina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla te masali lazi mi ngi mel ni ki nga xam ne yéen ayqu yéen ayqu day yuuxu bima ci koo xam ne laa yasmau du dégg illa duaan lu dul coow li wa nidaan ak woote ba maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam mbaam xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéefar tam booy wax ak moom son yi dong lay dégg mu ne mi ngi mel ni kuy woo mbaam xam nga léeg-léeg benn waay di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag wi yow da ngay sontu waayu léeg-léeg dawalkati fas yi wax ko sa fas yi dawal fas ba mu yàgg ngay wax ak fas yi na waayu looy taxaw yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel da nga gis ñuy wax ñuy wax ak télévision waaw ñu jàkk ci télé bi waaye di football naan parce que waaye waaye bu ko def ci koñ bi yéen gaaña nga ca France di football ngay toog ñu wax ay télé dëgg la ni daa yi seetaan football yooyu rek lañ fi nekk moo tax alxuraan daal doy na waar rek mu ne wa masalul lazina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañu weddi kuy wax ak ñoom ka masalul lasi yaa ngi mel ni ki nga xam ne day wax ak yaa ngi mel ni ki nga xam ne yenn iqu day yuuxu bi ma laa yasmau ci loo xam ne du ko dégg du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam soo yi su mun ñu tax la ñu doon bukk mun ñu luu la ñu doon ruy mun ruum yun ñu gumba la ñu doon fahum la yaaqiluuna dootuñu mën a jëfandikoo seen xel yéefar yëpp da koo dal daa tëx dafa luu daa gumba kooku kenn mënut a wax ak dégg yàlla ñu ci àlla musal yaa ayyuha allazina amanu ee yéen ñi gëm ee yéen ñi gëm kulu lekk leen min tayibaati ci yu lew yi nga xam ne wala min tayibaati maa ci yu lew yi nga xam ne razaqnaakum wërsëgale nañ leen ko yi leen wërsëgale ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem leen ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax min tayibaati ma razaqnaakum yu lew yi ma leen dénk yem leen ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaane jàmbur lekk sa wàlla lekk yëfi jàmbur dëggnu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur ha neel alhamdulillah alhamdulillah waaye boo yemee ci alhamdulillah dong du sotti bu yàlla santaane da ngay def bu teree nga bàyyi mu yëg ne yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk te di ci naan te boo ne ko kaay fay kaay fay courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem Sonatel mu ne non aw jot quoi nga ne kaay dem Sones mu ne xoofoo waaye bokk yi luutu la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala sara nga bañ koor nga bañ waaye léegi loo bëgg loo bëgg moo tax ku lekk xéewal yàlla yi na sant yàlla inna in wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin lahi ولم تتب ولم تتب لطلب الغفران مجتهدا فداخل النيران gis naa mbind mii Mamadou Ndaa bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla bi tey fo rek te loo tuub góorgóorlu booy day dugg sawar kon washkuru lillahi sant leen yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyaahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale te sant leen ko innama harrama alaykum lii rek la araamal ci yéen innama li fi nekk xarama aleykum aramal na ci yéen yii ñu bëgg a tudd almaytata mit dafa xaram waddama ak deret ju tuuru ci bi ñuy rendi gàtt bi wala la ñuy rendi dafa xaram wa laxmal xinziir ak yàpp mbaam xuux dafa xaram wa ma uhilla ak lépp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd bii ca rey ga weneen tur li xayrillahi te du yàlla daa xaram ñeent yi kenn du leen lekk métt kenn du ko lekk deret juy tuuru ca la ñuy rendi kenn du ko lekk mbaam xuux kenn du ko lekk lépp lu ñu rey te rey luñ ko yàlla kenn du ko lekk li ñu rey te rey luñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal jinne mbaam teen mbaam tuur léeg-léeg nga dem ci sëriñ bu xaaba nag laa wax mu yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq ganaar gu xonq googee daganut parce que jinnee ko ko sant jinne ko sant boo ko tuuree dara tuural nga jinne der te yonente bi nee ne ku tuural der ku dul yàlla weddi nga wala bokkaale nga man zabaxa li gayrillahi faqad ashrak naka noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag nag woowee kenn wuru caa lekk ndax jinne la ñu reyal nag wa ndax mu bàyyi waa jiy tëdd yooyu dafa dëgganut moom la yàlla wax ni wa ma uhilla li xay bihi li xayrillahi waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na bu fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na jërëjëf ma dem de yàlla nee na faman turra ku loru ku loru xiif lool gayra baaxin te bew taxut ak jubadi taxut wala aadin jalgati jiggir bi yàlla yi taxut mu gis medd mën naa dagg ca medd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma alayhi amul benn bakkaar waaye nag ulama yi nee nañ medd rek medd rek yàlla araamale sàngara du fa dagan parce que boo mosee du doo bàyyi sàngara boo mosee du doo bàyyi moo tax fa sàngara yonent bi nee na moom moom boo doon loru it bul ko fajoo waaw yàlla defut li leen di faj ci lim xaraamal ci yéen moo tax lu la dal lu nekk ñu ne la boo naanee sàngara wir mukk loolu moom bàyyi fa sàngara du faj yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yàlla xafurun baalekat la yàlla nañu baal rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu yërëm tabarkalla ñaari melam yooyu lim koy tegale bari na lool ci jeexlu aaya xafuur rahim léeg-léeg mu tegale ko ci jeexlu aaya mu ñaari mat yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëbb ma anzala allahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi wa yastaruuna bihi ñu koy weccee ko samanan qalila njëggu néew ulaika ñay def loola maa yaakuluuna lekkuñu fii butunihim ca seen biir ya illa naar lu dul sawar lu dul sawar ku deñ ci téere feeñal lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk loolee nga lekk yàlla nee na lekkoo lu dul sawar moo xam nag téere boo ko def injil tawraat quran ak beneen téere bu mën a doon wala yukallimuhum allah yàlla du wax ak ñoom yowmal xiyaamati bu bisu taxawaay ba wala yuzakkihim du leen setal du ci setal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn walahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mbugal mu métti yàlla nañu ci yàlla musal ulaika ñooñu alladina ñooñu ñi nga xam ne ishtaraw dañoo weccoo ak dalalata sankute bil huda ci njub wala azab ak mbugal bil maqfurati ci njëggal ñaar lañ yoroon weccoo kooko ñaar dañoo yoroon al huda ak al maqfira wecceeku daal di jël ak dalala wala azab yàlla nañ jàlla musal waaw waa joo xam ne da ngaa yoroon njub ak njëggalu yàlla jëm joxe ko nag ñu jox la sankute ak mbugalum yàlla yooyu baaxut yooyu baaxut ñàkk xam li nga yor moo koy waral yàlla mu ne fama asbarahum ala naar waaye waaye ñee ko mën a muñ sawara mu ne ñii ñoo ñeme sawara dëgg dëgg dëgg fama asbarahum ala naar ñii ñoo ñeme sawara xam nga doomu aadama ñàkk xam sawara day tax léeg-léeg day ñeme sawara dégg naa benn waaye naan bon man damay dund def lu ma neex su ma dee yàlla def lu ko neex ma ne ko baax na wala mu ne fu ma yàlla dugal baax na da ngaa xamul waaye bis buñ la taxawalee sawara ci bunt ba sawara nekk tàbbaa nga nekk fii nga dool ci sëkk sawara bu nekkee tàbbaa nga nekk fii nga dool ci sëkk wallahi alazim moo tax yàlla ne fa ma asbarum ala naar ñi ñoo mën a muñ sawara waaye dañ koo xamut sawaraw àllaaxira wële boo koy nattaleeg sawaraw adduna wii mi ngi mel ni ku jël doomu tàndarma dañoo jële doomu tàndarma ci sawara wële raxas ko ci géej juróom-ñaari yoon ba raxas ko ci géej yëpp océan yi juróom-ñaari yoon ñu xooj ko ci océan bu nekk door koo seppi teg ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbuwaat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy toggee fi mu nekk fama asbarahum ala naar ñoo ñeme sawara yonent bi nee na sawara bu ci aw xal ñëwoon adduna du ngeen jéetoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon adduna du ngeen jéetoo sax suuf si day lakk ba du ngeen jéete dara du sax du sax mukk wallahi sawara wi gën a sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal sa yuur gi sawara wi gën a sell allahu akbar fama asbarum ala annar zalika li leen ko yóbbi mooy bi ann allaha naqte yàlla nazzala alkitab wàcc na téere bil xaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi ann allaha yàlla nazzala alkitaaba moo wàcc téere bi bil xaq ci dëgg tawraat day wax anzala fii mu ne nazzala sadda zabi mooy wàcce ko ndànk par ndànk wa inna lazina ñi nga xam ne xtalafoo dañoo wuute nag fil kitaabi ci téere bi la fi shiqaaqin baid ñi ngi ci wuute gu sore duñ ca jóge mukk yàlla njàll musal laysal bir yàlla nee na yéen ñiy laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax wallaay lay sal bir loo bandi bandi bandi boo ko mayee xaalis mu ne ku baax nga léeg-léeg da ngay musique yow yaay tax gone yi def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan biti yaay tax ñuy sotti koy fàqmaan waaye léeg-léeg ñu ne ku baax la wallaay léeg-léeg nga doon gone boo xam ne lu sa bàyyi sant nga lank ba pare ñu naan ko baax léeg-léeg nga doon ko xam ne woor baa ngi nii amagul ci benn sant naroo ko ci ci xéwal ñu naan ko baax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ko baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ko baax ngeen wax ko acca laysal birr baax yi mut ci laysal birra baax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci xiblay penku wal maghribi ak sow baax yi mu ci julli loolu la bëgg wax baax yi mu ci julli ak sëlmal baax yi mu ci julli ak sëlmal ah walakin al birra waaye baax benn man amana billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy benn wal yawmil axir day gëm àllaaxira wal malaaikati day gëm malaaka yépp wal kitaab bi day gëm alquran wal nabiyiina day gëm yonent yi juróom de wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbihi te gën koo bëgg kam koy jox juróom benn waaye alal ja nag mu wax fa muy dem sabil xurba day tàmbali ci mbokkam wala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk ah boo yekkale yekkal ki sa yow yekkal ki sa yow ba mu ne bul ma yekkale si nga yekkale ka ca tege waaye yekkale jële ko fii boobu jigéen ak maax taxut wal yataama alal ji na ci jinn yi mos wal masaakin ak miskin yi wa bin wa bin sabili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranke wa saa'ilina ak yalwaankat yi wa fi riqaabi ak ñi nekk ci jaaxle moo di njaam juróom-benn maanaam loolu dañuy lim fi ngay def alal ji limoon na juróom-benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continuer nag wa aqaama salaata day julli juróom-ñaareelu melo yi ku baax mooy day julli julli juróom wa aata zakaata ku baax day joxe asaka mu juróom-ñetteel ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali kóllëre isa ahadu buñ kóllërante mu juróom-ñett wa saabirina ku baax day muñ fil ba'saa'i wa darraa'i fil ba'saa'i ci njaqare wa darraa'i ak lor wa xiinal baasi ak jamono xare juróom-ñeent yii la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxoo mbokk yi kon ku baax ndax sàqamaan baax na ndax bisket baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yii yëpp day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yombut jiwa baax waaw te néew bi rek ñu jéem ko nga ne ku baax la wax ah yow gaaw nga jël engagement de waaw ku baax la wax parce que ma ma mas naa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la wax est-ce que juróom-ñeent yi yëpp ñu ngi ci waa ji waaw moo tax ñaare gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léeg-léeg duñ ko wax duñ wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon waaw ndeysaan jeex ñu ko defee maire yi naan may ay deux cent ci cent vingt cinq ñu ne ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom-ñeent yii kum nekk yaa baax tabarkàlla ay ju am solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaayika ñii hum ñoom dong nag al muttaqoon ñoo ragal yàlla ñii dong na ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ku jikko yi nekk ci yow koo koo ragal yàlla ulaayika allazina sadaqu wa ulaayika humul muttaqu wallaay ñii ñoo ragal yàlla ñii rek a dëggu mu ñëw ci beneen àtte wax naa la bi yàlla nekk ci xuloo yi moom léegi tabarkàlla day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku dagg bakkanu jàmbur ñu dagg sa bakkan xisaas mooy ku tëj oto jaamur nañ ko sa oto loolu ay xisaab maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaab yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa dafay accident mbëkk oto jaamur ngeen tolloo oto nga tëj bëtam te sa bos soju dañuy wekk sa bos rek weyal ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu déedéet dañuy nekk ba sama yàlla rek ne la acc dem leen waaw boo fa ne kumux ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee déewul ñu wàññi say point ci sa ci sa ci sa permis bu point yi jeexee du doo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal moo tax réew moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee sàkk nga xisaab yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu yéen ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fil qatla ci rey alxur gor gu reyati gor bil xurri nañ ko rey al xurru bil xurri gor gu rey gor nañ ko rey gor gu rey gor nañ ko rey waaw ku rey daal nañ la rey am nañ nag boo leen reyee dina rey moo tax mu tàmbalee foofu wala abudu jaam bu rey jaam ni moom bil abdi jaam a koy fay nañ ko rey wal unsa jigéen bu rey jigéen ni moom bil unsa ñu rey ko mu def nag góor gu rey jaam jigéen ju rey góor ak yu demee nekk yooyu ulama yi nee na an na nafsa bi nafsi mooy ñëw réglé ko ku rey rek na nga rey ku rey rek na nga rey ba mu des ku rey jabaram ak mbaa doomam ku rey sa jabar kenn du la rey ci lislaam ku rey sa doom kenn du la rey ku xaañ nit it kenn du ko fayule ab xaañ boo xaañee nit duñ la xaañ ndax deru bopp la ñëpp di tollooliwut dafa am ñoo xam ne naasiyatun kaasiba lañ yor am ñoo xam ne yoruñu naasiya naasiyatun kaasiba naasiya saadiqa lañ yor naasiya kaasiba ku ko yor buñ lay xaañ ngay dee mooy der wu oyof wu nga xam ne moo ëmb yuqu yuur gi ñëpp tollalewuñ ko mu tax ci wàllu xaañ boo xaañee duñ la xaañ waaw waaye boo fuqee bët dañuy fuq sa bët boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roof paaka bi ba nam toll ñu teg la ko wut fu mu yem daaj ko ci ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne faj ko defee kenn du fi jamaatee paaka kenn du fi jam kenn waaw bu fekkee nag da ngaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gileem wala juróomi gileem dañ lay joxeloo ay gileem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisaas fi lqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiihi ci mbokkam mum rey shay'un dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bil maaruf na ci ñëpp d'accord ci njëkk bu kenn rey waa ji waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gëléem lay joxe quarante gëléem yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xaw ma cent trente cinq xaw ma jege na loolu daal moo tax bu ñu ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay defal naan xale yi puus leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doo ma dal boo bëggee jox diya tabarkàlla doomu aadama it am na ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya dagan nag diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sonaa koo sax yu demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan lislaam a ko tër wala ki rey sa mbokk ci tey ko joxe diya it loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilaahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko islam ko tëral ndax tension bi nekkoon ci gaa yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax nag ñu ne waa ji joxeel ndàmpaay tax siifun ak oyofal la suñ oyofal la doon dañ naan dee rek rey rek